asalaamaaleykum euh, mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora bi may dellu siwaat waat tey ci euh, live bi ñëw waxtaan si ak mbokk yi wolof Njaay nee na saay saay waxul dëgg wante yàq na xol xel ak xalaat dama ne bu bëgg a yàq Sénégal tey c'est une certaine presse mais jëralaat wax ci une certaine presse du ñu ay caméraman du ñu ay photographe du ñu ay journaliste xam nañ seen bopp ay patron de presse yu fi yor ay terrain yu dul jeex yor fi ay immeuble yor fi ay marché bëgg nag doon ay taalibeewu Macky Sall te di bañ wax nit ñi dëkk Sénégal nag xamuñu ku tooñ ku fayu lañu xam ma bëgg wax ci leer mbokk yi damay jàkkaarloo ak askanu Sénégal ci dimanche le 11 septembre 2022 di leen di annoncé suma candidature ci présidence de l'Assemblée nationale ci turu Yewwi Askan Wi waxoon naa leen suñu taxawaay ci Assemblée nationale du Sénégal bu ci kenn am xel ñaar day nekk taxawaay bu ànd ak fulla bu ànd ak fayda bu mat sëkk te noonu lañ ko fas yéene jàpp pendant deux ans à ngeen jëggal ma nag ci kàddu yi foofu la dëkk bi tollu tey naa fiqi lay waxal mooy ñuy gis dëgg di bañ a wax dëgg wax leen lu leen neex waxaat leen lu leen neex suma baat ci kaw assemblée nationale du Sénégal comme na ngeen yéen ñaa ngi di majorité ñun de waa Yewwi de on nekk que cinquante six ngeen ne am ngeen quatre vingt wante de mën naa juum mais démb de da ngeen wane ne que seen majorité mooy gendarmerie nationale du Sénégal te noonu leen mbir bi tëddee ba législature bi di jeex allah ci fulla ak fayda pour le compte et le nom du peuple sénégalais abusé et humilié Assemblée nationale vous refusez de respecter les lois et les textes en vigueur dans ce pays fan la mën a gis ci àdduna bi Assemblée nationale bu am loi organique loi organique mooy loi buy organiser assemblée nationale loi bi ci article cinquante et moom la ñuy woowee règlement intérieur bu assemblée nationale du Sénégal mu ne képp kuy député bés bu conseil constitutionnel di proclamer résultat définitif yi bés boobu la ñuy considérer que da nga entrer en fonction de député parce que député fonction la ñu ne à partir de déclaration boobu ba conseil constitutionnel di génne résultat définitif Barthélémy Diaz député la à l' assemblée nationale du Sénégal kon Barthélémy Diaz su nekkee ministre de la république heure boobu article cinquante et un nee na ko am nga juróom-ñetti fan pour mën a démissionner juróom-ñetti fan pour mën a démissionner dama ne juróom-ñetti fan yooyu passé na. ñu gis ci assemblée nationale démb du benn du ñaar wante ay ministre ak ay directeurs généraux ñu nga xam ne ni yoon daf leen tere ñuy cumuler ñoom ñu ne dañuy toog ñu ne ñuy voter ñu interpellé président de séance kooku nag ànd ak ñàkk jom ak ñàkk fayda bu jéggi dayoo ñun nag ñu won ko ful ak fayda boobu mooy benn beneen bi ma wax président de séance ma ne am nga ay huissier yu nekk ci biir hémicycle bi joxe nañ fi ay enveloppe ci enveloppe yi yépp nag laa wax lépp nag laa wax manqué wul benn enveloppe candidat Ahmed Aïdara bulletin mi ngi ci biir candidat wu président Macky Sall moom laay woye la marionnette de Macky Sall duma tudd turam bulletin mi ngi ci biir candidat wàllu di président Lamine Thiam bulletin mi ngi ci biir enveloppe bi wante man suma bos nekkul ci biir ci majorité bi ci boppam parce que ñëpp ay mbokk lañu mu am fa ñetti nit ñu ma fa yónnee SMS ne ma sa nekkul suñu enveloppe ku ñuy woy Sanu John di honorable député bokk suñu groupe ñun waa Yewwi Askan Wi mu ne ma Bart interpellé le président de séance su ma enveloppe ñi nii ñetti bulletin moo ci nekk sa bos nekku ci mu amaat keneen biir assemblée nationale bu ma njëkkoon day loolu ma ne pat ba yàlla may ma ma yëg ma interpellé ci yar ak teggin la présidente de séance ne ko vous devez utiliser les huissiers te laata loolu di am huissiers yi ñuy ñëw di distribuer enveloppe yi amagu doon sax président de séance wala président de séance fan nañu mës a gis assemblée nationale noo ko installé président de l' assemblée nationale te amagul sax une présidente ou un président de séance huissier commencé di distribuer ay enveloppe yi ngeen xam ne biir enveloppe yi huissier en complicité ak secrétaire général bu assemblée nationale secrétaire général bu ngeen xam ne ni mairu APR bu Nganda partisan ñaan ñoom ñoo jël bulletin yi dugal ko ci enveloppe di ko distribuer dama ne poste yóbbuwuma assemblée nationale askanu Sénégal la ma yóbbu assemblée nationale poste ñoruma askanu assemblée nationale euh, askanu Sénégal na ma ñor wax leen lu leen neex def leen lu leen neex dañ leen woon fulla ak fayda bu doy sëkk biir assemblée nationale di ngeen respecter askanu Sénégal à partir de maintenant et quel que soit le prix à payer la récréation est terminée dama ne Macky Sall tu es minoritaire dans ce pays tu ne mérites plus que je te vouvoie tu es minoritaire dans ce pays la la yàlla baaxee nga def sa yëfu tappale def sa yëfu caaxaan ba dóor marto juróom-ñetti député yokk ay population Ranérou Matam Kanel et j'en passe quelle honte pour le Sénégal quelle honte pour la démocratie sénégalaise et toute la et une certaine presse s'y tue soi-disant les intellectuels de clavier de couloir et de circonstance soi-disant des députés qui se disent être de l'opposition certains se croient être des donneurs de leçons de morale ñi nekk ay mannequins ñee nekk des aiguilles doublées de jaloux vous êtes mal placé pour donner des leçons à qui que ce soit mal placé un opposant on le reconnaît par sa posture son discours son attitude askanu Sénégal yéen lay waxal ma bëgg a wax ci leer à partir de maintenant Assemblée nationale du Sénégal amatul 165 députés assemblée nationale du Sénégal à partir de maintenant cent soixante six députés lay am le cent soixante sixième député mooy nekk la gendarmerie nationale dañu ngeen di jaajëfee au passage su fi Macky Sall indee bi fi bëgg a dooleel góor jigéen dinañ wane fulla ak fayda ci assemblée nationale te lu mu leen jaral dinañu ko jaral su fi Macky Sall bëggee indi Sénégal ci assemblée nationale luwa buy yokk dund bi Sénégal dañu fas yéene wone fulla ak fayda ci assemblée nationale ku leen jaral dinañu ko daal jaral su fi Macky Sall bëgg a continuer di jël géej gi di ko tayle tubaab yi ba suñu mbokk nappkat yi duñ ci gis ci seen bopp dinañ wone fulla ak fayda bu mat sëkk biir assemblée nationale ku leen biir bi jaral dinañu ko jaral dama ne xawma majorité ngeen xawma minorité ngeen wante ñun nous nous considérons comme la majorité dañu fas yéene contrôler l'action du gouvernement ministre bu ñu fi woo ñu lay poser ay questions nga ñuy bëgg a kokkali dinañ wane fulla ak fayda ci assemblée nationale du Sénégal ku mu neex nag wax waxu naafiq bu ko neex ñun nous savons qui nous sommes nous savons où nous sommes nés et nous sommes bien éduqués wante nous sommes en mission pour le peuple et le compte du peuple sénégalais. loolu mooy wax ci lu ëpp tuuru lu ngeen nekkee woon ci assemblée nationale di saaga nit ñi di dóor nit ñi da ngeen ko jéemaat ci législature bi ngeen xool di ngeen xool est-ce que fulla ngeen di gis ak fayda ngeen di gis wala leneen ngeen di fefekk parce que lu ëpp tuuru dama ne mbokk yi ah, lu tax démb ñu jot tamit wane fa fulla ak fayda loi buy organiser assemblée nationale ñu koy woowee règlement intérieur de l' assemblée nationale du Sénégal article quatre vingt six alinéa six nee na su ñuy fal président assemblée nationale lenn rek moom mën a am ku ànd ak ku ñuy proposé da ngay jël bulletin blanc waxuñu da ngay jël bulletin bu am tur bu ñuy bind dañu ne da ngay jël bulletin blanc. ku àndul ak candidat boobu da jël bulletin bleu ku bëgg a dangay jël bulletin blanc bu ñu baaree ak xëy bu bleu loolu amul fenn fu ñuy wax dañuy bind ay tur dañu ne dañuy wax waxu couleur lu tax ñu wax loolu parce que ci assemblée nationale bu Sénégal dafa bëri ay mbokk yu fa toog toogal seen askan yàlla nattu leen mënuñu bind mënuñu liir loi organique bi dem na ba ne su ñuy fal président assemblée nationale doyen d'âge mooy yéeg mais doyen dage bu mën a lire ak mën a bind dem nañ ba yokk ci ñuy toog ak président de séance doyen d'âge bu mën a lire ak bind day nekk ñaari député yu gën a ndaw ci assemblée nationale yokk tamit ci ñu mën a lire ak mën a bind kon nag lu tax man Barthélémy Dias man ma nar a nangu man Barthélémy Dias en plus que ñuy joxe ay enveloppe ñu ngeen xam ne ni suma bulletin nekku ci ñu ne maintenant dañuy bind ay tour te benn partie importante des députés de l'Assemblée nationale mënuñu lire mënuñu bind naka ñu mën a liiree Barthélémy Diaz wala Lamine Thiam wala Ahmed Aïdara nu ñu koy xamee kenn nag ci ñoom duma tudd turam parce que dama ko jéppi yor saakam yor ay procuration di def lu du def lu ko neex di buum di buumi moom yàkkamtewuñu ko waaw yàkkamtewuñu ko moom dëkk yoruloon dara tey nag nee na dafa yor ay terrain yu dul jeex nee na milliardaire la yàkkamtewuñu ko dama ne mbokk yi na ngeen bàyyi certaines certaines presse continuer à faire la sale boulot pour le compte de de monsieur Sall wante yéen xam ngeen kan mooy Barthélémy Diaz xam ngeen kan mooy Guy Marius Sagna xam ngeen kan mooy Ababacar Mbaye xam ngeen kam mooy Abbas Fall ku leen juum ku xam ngeen lan mooy fulla xam ngeen lan mooy fayda te noonu lañ ko fas yéene amee ba Macky Sall nekk ñit te mbokk yi fi may daanalee Macky Sall c'est à toi que je parle je refuse de vous voir ta petite marionnette que tu as mis l'Assemblée nationale du Sénégal là tu retiendras une chose tant que le 166e député est présent tu peux continuer à violer les lois et les textes en vigueur dans ce pays. Et que tous les partenaires du Sénégal, que ce soit des partenaires bilatéraux ou multilatéraux, des partenaires techniques ou financiers, qu'ils constatent que le Sénégal n'est autre chose qu'une démocratie, tout sauf une démocratie. Mais su nekkee toi Macky Sall, toi et ta marionnette que tu as installée à l'Assemblée, toi et tes solo députés que tu as à l'Assemblée nationale, et je souhaiterais vous annoncer avec beaucoup de plaisir que suñu génnee ci màggal de Touba ñuy nuyu di jaajëfee di jox wàccuwaay suñu wójur Sëriñ Muntaxa Mbàkke di ko ndokkale ci màggal bi yàlla na fi yàgg te wér suñu génnee ci màggal de Touba nous allons initier une proposition de loi qui va régler définitivement la question du troisième mandat parce que lii lu ko waral lii yépp mooy troisième mandat et à ce titre j'invite le peuple sénégalais à envahir l'Assemblée nationale du Sénégal di nga ñu lett baa nga firi ñu Macky Sall troisième mandat du bonde Sénégal loo ci bañul duñ ko ci bañ va prendre ta sale presse et continuer à raconter tes contre-vérités tu trouveras Barthélémy Dias sur ton chemin tu trouveras Guy Marius Sagna sur ton chemin tu trouveras Abbas Fall sur ton chemin tu trouveras d'autres opposants sur ton chemin nous avons décidé de résister pour le compte et le advienne ce qui adviendra à très bientôt ñu ngi leen di gërëm leen sant mbokk yi jërë ngeen jëf